kii kan la. Père Noël. kii kan la. waaye nan nan doon nit yi Serigne Touba. nañu ko suñu borom dexal. ah ginnaaw boo moom la sëñ bi dénkoon njaboot bi ñu ne yàlla la leen dénkoon yàlla moom jàngalu sëñ bi yàlla jàngalu yàlla nekkutoon buy nguraay yi di ko sàcc benn fan. Daaru Marnaan moom yàlla sëñ ko woon dëgg yàlla. loolu moom dëgg yàlla xaw ma demee waaye lii moom wóor na ma moom ne moom ceer na moom bu yàlla. yërmande ak njëggal. waaw noppi naa ci nag. moom foofu rek laa jéem moom. waaye sëñ Tuubaa la mënut a ñàkk. tey kat nag bu demoon ba ëllëg ba am yërmande yàlla njëggal ci yow ma ngërëm a dund. bismillah ko tuddi ko béréb yi njariñ la institut yi bulwaar yi borom xaftaan bu weex ba lañ ci war a wér bu ne kuy ku mu ñu ne mooy Ahmadu mi daan ay murid lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek lañu tey moom lañu yaakaar ëllëg ñun ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañu def. ñun de wax léegi. lu daay nee damay fenn bama leen kay wax legui dal ana ana warami mu so les petits les petits cafards la les cancrelins la ah eh? du nu gossu xamunu dara tok nek fay fanatique di wax di saga rek la la leen wax legui la leen sen Père Noël bi wax. yéen ko deg ma mayat leen ko eh. Serigne Touba la am su fi rom fekkon Serigne Touba ak yonent gi mu romb Serigne mu romb yonent gi dem ci Serigne Touba wax day leer ah xana kay ciow day fin déglu leen. loolu ma doy ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañ ko def ñun damay wax ne bu fekkoon ne bi bis dañ ba taala ñii suñ doon ne nee ñeent baa ñu ñeent ne leen sa gudd bi yëpp sëñ Tuubaa nga ne dama leen di romb cheikhul khadim ñu ngi lay jébal suñu bop aduna ak alaxira aduna ak alaxira suñu lepp suñu lepp suñu fepp suñu fepp suñu ñepp suñu ñepp jébal nañ la ko jébal nañ la ko sey ko ko dund ko ko dund malaika ñu sey nawle wala nga gën leen Bindu bindu bindu aji wala aji ndom bindu bindu bindu bindu jinna bindu xalaqtu la bindu lépp nag suñ tubaa la yàlla suñ tubaa ko tax di yàlla yonente bi garaat bu mu waaye am suñ tubaa la ko cakkat suñ tubaa yàlla bu amee garaatub yàlla bu bu ñëpp noddu jotee ñëpp ne allahu na ko sant borom tubaa nga xam garaat boobu borom tubaa ko takkal réew mi kat réew moom kenn du fi falu te neexul sëriñ tubaa ndax mësta am kenn du fi falu ba àddina tukki te neexu sëñ Tuubaa yàlla de ku ko wax keneen ku ne mën naa wax tawxiid mën naa wax bokkaale nit ñi ay sëriñ lañ gëm dañuy jaamuy xërëm ku mu neex nga wax ko waaye bi ñu taxawee ci Sénégal jël jee si teg